ñi xamuñu woon sens bi tout au début loolu la def ci moom xam-xam boobu ba xel Xelkom euh, mu indi fa ay machines yu bëree baree bëri def fa garage def fa formation ndongo daar ya fa jàll defe naa ya am seeni lijaasa te ay tubaab jox leen lijaasa bi ëpp na junni barki démb rek équipe bu Massey Ferguson bëgguma wax marque bi sax équipe bu tractoriste ñëw na di continuer def euh, formation waaye li ñu wax keroog sëñ bi nee nañ ni ñu gisee entretien machine fii ci Sénégal bu xel ko mosuñu koo gis fenn bien que am na ñu jiitu historiquement ci wàllu machine agricole mais nee na ñu ko gisee type de marquage yi ñu def et tout koo gis même mosu ko xalaat sax France te loolu seen imagination yu ñu boole ci seen xarañ xam nga ko jàng Alxuraan rek yéen xam ngeen koo xam ni dafa jàng daara moom xam nga xarañ gi nga xam ni moom lay ànd kon loolu lañ démarré woon Xelcom ànd ak sëñ bi mu ñuy teg ci yoon di ñu teg ci yoon di ñu yokk ci yoon ba fan yu mujj yi moo ñu jox ñetti tracteur yiñ ko doon yóbbul ni tracteur yi nañ ko jël wara wërale ko réew mi wan ko nit ñi suñ ko wanee nit ñi te ubbi fi société loolu am ndigal la loolu moom mooy TSE te ñetti tracteurs yooyu biñ ko jëlee ñi ngi njëkk a dem vale def ko foofu ñu daan caravane des defe naa boobu marché un milliard lañ fa ak comité tomate jóge fa dem Fiara tase fa ak président Ablaye Wade tase Cheikh Amar ak président Ablaye Wade du politique du dara liggéey la ko fekk ci biir foire bi gis ko li muy def mu convaincre président ni ko machine agricole lu war a mën a am ci Sénégal loolu moo boole woon Cheikh ak Abdoulaye Wade boole ko ak Macky premier ministre. jamono yooyu gars ko woon. gëmuñu parce que c'est normal xam nga machine yu cher yuy jar. Euh, je me rappelle président bi mu gisee euh, Ablaye Wade première fois mu gis mu ne am naa ay tool Kër Massar du ma ko fàtte ñaata lay jaar ma jënd ci Cheikh ni ko déedéet ñun lu ñu soxla mooy ni ngay subventionné euh, petit matériel atelier dañu bëgg yow nga teg ci sa loxo subventionné ko kon danañ fi indi junni machine donc bi muy wax junniy machine yooyu aujourd'hui def nañ ay junniy junniy machine te du ñuul rek c'est-à-dire yëf yi dafa lawaale du tee sa rek a fi nekk léegi ñuy def machine dañu bëri te macha allah ku nekk yaa ngi jël sa wërsëg parce que machine du loo xam ne da ngay jaay rek dem dañ ci war a topp soo ko toppul du dem donc formation boobu la ñu am ci koom ba léegi nii euh, sa nekk société bi jiitu ci Sénégal wala ci Afrique de l'Ouest machine wax nga ne li muy def ci technique culturelle am solo waaw façon culturelle maanaam bay soo ñëwee fekk suuf nga wëlbati ko machine bu nekk war nga mën a am lu mukk fukki fukki pièce mais am na benn par exemple bi ngay utiliser ci suuf bu mel ni joor fu mel ni fii du boobu ngay utiliser Thiès du boobu ngay utiliser Waalo bu ci nekk am na suuf yoo xam ni seen teneur seen maanaam seen euh, ni mu mel jarul ngay dem ba ci suuf di dem ay vingt centimètres quinze ngay dem donc machine bu ci nekk dafa am lu mu adapté puissance it dafa ànd ak tracteur mënoo jël tracteur bu mag nga utiliser ko ci tool la nga waroon am ca bénéfice nga def ko ci gasoil waaye donc lépp dañ koy jàngal euh, nit ñi di ko jàngal xale yi ñu kon ne ñun di jàng aussi di ko jàngale. waaw waaw tàmbali nañ ko ba xel kom daaw jeexe la ñu tàmbali euh, dajale Xelkom déwén ndax lu mat ñeent ñeent fukki kaar par exemple soo ko bëggee yóbbu kaar bu nekk da nga ci fay trois cent mille wala deux cent cinquante mille. nit ñi ñëw junni junni nit ñi ñëw bokkul kaar rek camion yi am na ñuy indi volontaire ay ñu bëri ñu ngi participer ci Xelcom ñu bëri duñu wax Cheikh rek mais ñu bëri aussi ñu ngi ciy def parce que xam nañ sens su Xelcom soo jëlee loolu nag moom mu gàddu aussi euh, jox nit ñi euh, xéewal euh, yóbbu leen indi leen jox leen xéewal jox leen dox def yëpp du logistique bu yomb donc ay millions millions millions mais comme moom loolu la def bisam du anniversaire am du leneen. bisam mooy xel ko donc looloo tax mu ciy def lépp li nga xam ne moom la am économie am yëpp ci xel koom la koy def te yàlla da koy jàppale toujours at mu jógee mu dem ci beneen. ci xayma lan lañ fa war a fekk lu war a góob. waaw li ñu war a góob ñun xam nga dafa am jawriñ technique li ñuy wax ñun comme ni nga waxee rek logistique beeg fexe ba lépp nekk en mais dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo jiwoon xam nañ nombre barigo yi nga xam ne lañ ji te chaque fois su xel koom jeexee dana am bilan boo xam ni. sëñ Saliou Mbacke njurul doomu sëñ Abdou Lahat moo koy def mais liñ la mën a xamal mooy xel Xelcom tibu organisation ay dëkk la ay village ñu koy woowee ay daara daara boo ci gis lu mu bon bon met na euh, junni ak juróomi téeméeri hectare lu mu bon bon te xoolal nombre daara yi nga xam ne ñoo nekk xel ko beneen wàll bi aussi du dugub rek la ñuy bay ko ren su bayee ci tool bi su euh, suba ñu def fa li ñuy wax jachère et moo tax léeg-léeg ngeen gis tool yoo xam ne duñ ko laal mais xamal ni ay junni junni junni junni ton ci dugub moom mooy génn lu tax nag mu ñu tànn woote ci dugub bi lu tax tànn ñu yeneen daara yi ndoo ndookaa mbuur et xel koom dafa ne dafa am borom sëñ Touba moom xel ko te dafa am lu mu ci wax mbiru sëñ Touba kon képp ku ci def mi ngi mel ni yaa ngi dem ci sëñ Touba di wujji sëñ Touba mais sëñ Touba li mu lay fay mooy ak yarte éducation daf lay won humilité nga xam ne fii xam nga borom yi milliards gis conditions yi nga xam ne fa la ñuy dëkk seeni kër nga gis jumaa ji moo gën a rafet kër yi ma ni soo demee màkk kër imaam yee dàq jumaa yi màkk loolu man maa ko wax parce que def naa ko ba taay mais soo gisee ñi conditions yi sëñ Saliou doon dund ak lépp loolu humilité loolu lay wane ni àdduna danga nga war a respecter sa morom te loolu moo nekk ci doomam bii nga xam ne moom mooy moom mooy Cheikh Amar. waaw Serigne Amar lañ mooy woowe waaye sama euh, sëñ Daaru Amar euh, Serigne Amadou Amar la lañ may woowe mais man euh, mooy sama tur ci këyit yi waaye nag Serigne Daaru Amar lañ mooy. waaw man maay secrétaire général holding Amar holding Amar mooy société bi nga xam ni Cheikh mooy président bi mu am vice président am directrice général société bi nag TSE benn la ci société yi waaw TSE tey moom moon nekk ci wàllu machine yeeg engrais yi am na TRE am na logistique boppam suñuy camion bopp ñu ngi ci miin ñu ngi ci lu nekk te 2002 lañ démarré dong ci wàllu machine di liggéey ba àgg ci foofu xam nga kon loolu am na lu nekk ci kawam am na ñaan waaw donc ñun li ñuy gisee rek nit ku am ñaan la euh, ku ko tàllal loxo yit xamal ni euh, su la ñaanalee xolam loolu la rek.